ndem médecin bi moo la mën a jox mbir wala mu pikiir la ba li muy def ci yow doo yëg dara ci mitit waxuma la ak yàlla saa borom kon jullit na jaamu yàlla ba mu ragal dee ba mu ragal suuf lekk ko ba mu ragal ay sax lekk ko na ragal ki bind yi loolu am solo yàlla li mu waxoon dara dañu ci kon ragal ko rek moom nit booy ragal na ragala mooy yàlla waaye nit kuy mooy yàlla amul benn sécurité dara ci lu bon jombagu ko nit nag buy jaamu yàlla bu mu ragal dara itam na ragal rek li nga xam ne mooy ak mooy xam ne yàlla mën na koo defal lu ne yàlla li mu waxoon ba léegi ma ngi ci asamaan suuf dee dund loolu xam ngeen dara soppeeku ci li nga gis na la wan li nga gisul yàlla mën na lu ne waaye déggewoo ci dara ndax taxawoo seetlu ci yëf yi yàlla mën na lu ne bul weddi dara ku xamul alif laam lu muy firi kon nag lu ñu wax bul ko weddi